lay noo ngi lay maa ngi sama yaay Fatou Ndoma onze billah bisimilah ina waani yàlla jërëjëfee borom Touba jërëjëfee borom Touba jërëjëfee borom Touba gàcce ngala mbay affaire Mbacke gàcce ngala mbay affaire Mbacke maa ngi lay nuyu bu baax baax di nuy sa ñi nga àndal say caméraman di nuyu père père Bourguewel di ko nuyu bu baax di sama waa écurie waa écurie Rëbës di sama waa koñ waa Rëbës waa Dakar Plateau maa ñu ñëpp di sama patron sama capot Moustapha Mboup Talibé Cheikh di ko nuyu bu baax a baax a baax di nuyu képp ko xam ne yaa ngi jàppale ci xatu Rëbës waaw Moustapha Mboup Talibé Cheikh ñu ngi koy ziar ziar bu wér a wér a wér a wér waaye fi ci fi buur njëkke léegi rek foofu laay njëkkee euh, caat tey la ñuy xam ndax day raam wala day dox waa caat moom benn boole rek bu juddoo Rëbës màggi Rëbës nekk écurie Rëbës xam la wax nekk bool bool nekk doomi bool ak doomi Rëbës nga bëgg làmb làmb nekk amuram mu ciy yëngatu waa. Euh, ci làmb. man ma xool daaw jëg laa dugg ci lamba ah. daaw daaw daaw laa dugg ci lamb waaw 2017. laa dugg waaw ci laa dugg ci làmb. waaw. nga am ci 4 combats. am ci 8 combats. Mhm. Ah. nga foofu am nga 8 combats. bëre caat Fora moom daan ak Ardo moom daan. Thiatou Fora ak Ardo ak Ardo waaw sa premier combat yaa ngi ko bëree ak kan maag Ardo ñoo ko bëree waaw mais dama bëri deux combats laa bëri Diourbel bëri Dóor waaw yàlla may ma fan ma ñëw Dakar seen premier combat Ardo daan ma Ardo bu golf gaynde Ardo bu golf gaynde nu dama ñëw xam affaire xale rek jàpp ma mhm. xam nga Ardo moom ma njëkk ci làmb xam nga liggéey naa ko lu njëkk ci nekk bu lëndëm moo lay woon fi ngay tooge mu daanam nag mu jig ma lool defet boobu ak maa jig sax ah, xam nga léeg-léeg nag euh, defet baax lool ci mbër koy defar waaw ndax dama daan ma xëy takk daal yi dimanche lañ bëri mu daan ma dimanche lañ di ma xëy takk daal dem entraînement xam ne ma maa bëgg lamb dama cee war a am dara te xam ne kii daan na ma mais mënu ma boobu moo doon sa troisième combat. waaw ma ñàkk ko. nga ñëw ci sa quatrième combat. maag Boy Sarr dama faa duggaat nag ma fa jógee. Mm. damaa jógee golf duggaat golf. duggaat golf waaw jël Boy Sarr bu écrire golf. Mm-hmm. daan ko daan ko waaw. nga ñëw ci sa ci sa cinquième combat. léegi ma ma ñëw jël bu Siteu. bu Siteu a nationale coow li bari lool gars yi ko fa fari. ma ñëw yàlla dimbalaat ma mayaat ma fa ndam. mayaat ma fa ndam waaw ba ma fa jógee ci laa bëri caatu fora. ci nga bëri caatu fora. waaw ci laa ñàkk sama deuxième combat. waaw après ma jël nëpp daan ko waaw uh, nga jël nag daan ko fii ci stade Iba Mar waaw mhm. léegi ci la bëri alliance ba la 14 mars bi passé. le 14 ko. Euh, caat la jëm. moom amul droit laaj kenn xale la. Mhm. te képp ko lamb boole lamb jànq man pare naa pour affronter gars yi. Mhm. tey boo nekkee xale nekk ci yoon amoo laaj kenn. fii koo fi laa day jàpp da nga koo raw. te ñun ñu bañ nga ne nga ne nga ne caat bi muy bi bi mu bi mu amee. li nga xam ne nii moom mooy moom mooy licence. Mhm. Euh, dañ ñu ko woon doo bëri. waaw ndax tellement boobu noonu xam ma waruma woon am licence. Mhm. sunu entraîneur ma ngee toog na ma doo bëri. loolu moo tax ma dem jël bëri fa ñaari combat gaa yi ak taa bi doo bëri dafa teel tellement xam ne ma nekkee booy. mais loolu yëpp sant yàlla la ndax lamb affaire de affaire de jàmbaar la affaire de góor yàlla la xam nga te lamb jàmbaar moo koy def góor dëgg moo koy def ma dem liggéey waat ñëw dégg nga gaa yi bëriloo ma waaw ci laa ñëw bëri nag waa premier combat ci laa koy soog a bëri. mais gis ci sa diggante caatu fora ci la ñu gis nag caatu euh, am solo. waaw caatu fora noonu ma noon demee ma ñëw xam nga dëggal sa bopp ndax combat bi dafa bëri woon coow mhm. xam nga di nga xam ne rëbës ak jàmm gën loolu dër bi la rëbës jàmm gën dër bi la combat bi bëri coow lool ci biir combat bi boo xoolee sax man maa ñëw def affaire jeunesse mhm. ñëw bëri loo xam ne teguma ko fenn mhm. te loolu dama koy jooy ba tey nag noppeeguma barke ma Cheikh Rafal te olof jaane na man ku ma dóor yar bi da nga may aal yar bi ma fayu. waaw. Euh, kon daal fi ñu toll nii bëgg nga revanche sa euh, waaw instant bi moom xam nga man daal xale laa maa ngi liggéey rek ku ma làmb booleel. xale laa maa ngi liggéey topp sama ginnaaw entraîneur di liggéey lu su ma ne defal lii ma def lii su ma ne baal ma bàyyi mais instant bi daal bëgg naa ko boo xam ne su ma ko jëlee ñëpp danaa kii man Thiatou Rebeuss. mais mais sa digganteeg euh, xale bi dëkk fële si Kambaaw nu ñu koy waxati. ban xale la. waaw sama diggante ak Liss Ndiago ah. loolu wax ji bëri na ndax tey ku ñëw Thiatou Rebeuss Liss Ndiago Thiatou Rebeuss Liss Ndiago yi ah. amateur yi ñooy boole ñoo xam lamb neex waaw nekk lamb lamb der lamb jànq mhm. te kooku combat nante li gaay naa combat nante yi mhm. combat waaw man pare naa pour ñëpp muy Liss Ndiago mhm. ñëpp pare naa man ku ma lamb booleel sama gars yi d'accord pare naa pour affronter la mais waaw promoteur dox na ko Abdoulaye Ndiaye dox na combat bi mm. su jum bi mooy deux fois mu koy dox combat bi deux fois mais gars yi nan bàyyi benn affaire te gis nga combat ko bëgg buñ bëggee combat bi taxaw nañ taabal ji tey sama combat Liss Ndiago tey buñ ma fayale ko jar tey tey combat bi taxaw tey billaay la 300000 mais fay Liss Ndiago nga 1 euh, million lan ngay wax ci loolu xam nga mère Fane dafa benn affaire dafa am am na kase yoo xam ne ñun mënu ko bëree suñu deuxième combat lañ ko bëree romb ko di wëy suñu deuxième combat 300000 lañ ko bëree barke sëñ Fall suñu deuxième combat lañ ko bëree di wéy mais am am na yoo xam ne xam nañ ko. kon sa combat bii ñu di ci euh, bu baax a baax li ma ci fayee ko sama combat Alliance Balde te loolu passe examen ndax tey damaa Alliance Balde ñëpp ne Alliance Balde moom man ma ànd ak samay mbokk ànd ak samay andi jàmm dem reyante ji yow yàlla may ma ndam nag gis nga Maître Fadam avant ñu dugg sax combat Liss Ndiago daa am koo xam damay ànd ak moom guddeeg koo xam ne boo ko gisee mën ngay gis na naa ne sama seex la te Dakar daan xamante mais mi ngi mel ñoo bokk ndey ak uh-huh. billahi wallahi ko aw ma fayam damay bàyyi yàlla yàlla na ko yàlla fay est-ce na man combat même boobu instant bi combat xam su ma ko jël ñëpp danaa kii amoon ci à trouver loolu laay wër combat der combat boo xam damay taxaw xeex dem ardo xeex dem ardo soo ko daan xam nga il lamb dafa am ñetti catégorie. mbër nekk Grand Yoff mbooloo nu ah? ban mbër la. temps maa ngi dégg am ay moye <laughs> maa ngi dégg maa ngi dégg turam rek waaw ma daal xam nga lamb dafa am trois daa am plan B am plan A am plan C man tey bi ma daal alliance bale sama objectif lan la woon suñu grand yi may ñu sens mais damaa xam sama voleur xam sama valeur. est-ce que loolu la ci bàyyi. man lu ma jël gaa ngi ciy ànd ak <laughs> ma de man mère Fadi mafia bi ñoo topp sax ma ginnaaw man xaw ma ragal man su demee ba nekk ragal gaa damay dan may rendi ndax boo juddoo rëbës en face jël bi màggee fa mënoo nekk ragal nga def dund lu nekk xam nga boo ko paasee jeex na kon amoo looy ragal ndax gaa yi topp sax ginnaaw. caat bu wax tey ci làmb moo la ci naqari lan nga may wax. waaw làmb li ma ci naqari moom. CNG bi ci la bokk. ndax ñun tey dañuy bëre ay mbër yu ndaw dañuy dagg ba dañuy dagg ba duñ fa dese dara uh-huh. man tey sama combat ci alxuraan 7000 francs laa laal reliquat sama combat ci alxuraan barke alxuraan 7000 francs laa laal reliquat te loolu di yoon ba pare au passage ñu jaale waale waa Pikine uh-huh. Jules Baldé Junior di koy ñaanal yàlla bi nga xam ne mooy suñu borom ñaan ko yàlla xar ko àjjana gën a kawe te yéexañu te xam ne tey làmb dafa passé foo xamante ne mbër bu feebaree ñu koy ketal ñun dañoo war a dépassé yooyu noonu dañ dépassé yooyu noonu tey làmb xam nga dafa toll foo xamante ne bu feebaree seen seen na yëkkati moyen bi li muy dagg mbëri ak li gars yi di jënd licence jàppale mbëri ñu faj ko. voilà. mais mais mais nag yaat est que xam nga ni ku deful dara kenn du la dagg. waaw loolu moom dëgg la moom. mais des fois dañ lay dagg ba pare te doo xam lu la daggee. waaw duñ la ko wax mais ko xam. waaw da koy xam dafa dañ la jox dañ la jox këyit. que sa ménager balaa ngay bëre daañu ko jox këyit. boo xam ne nii daañu ci ko lii bu ko defee lii moo ko ciy fekk lii bu ko defee lii moo ko ciy loolu moom dëgg la. mais mère Fane tey bëgg naa tey ji bala nga fay jógee dama bëgg ñu waxtaan ci làmb tey damaa def huit combat am sept victoire am deux défaites kon tey ji Thiatou Rebeuss tey ji foo taxoon ne làmb Thiatou Rebeuss gars yi ñu koy bàyyi xel mais dama bëgg grand yi ñu bëree ak man Liss Ndiago kese du fi mbër Liss Ndiago kese du fi te ay Alioune Seye junior ñu ngi fi bu yëmbal waaw mi ngi fi ay Tafa Gueye 2 ñu ngi fi <laughs> ay Ondula Fou ñu ngi fi dañoo war a mën a bëri yow fi li mu euh, maman man xale laa. xale laa te may liggéey. mais cat <laughs> billaay wallaay taalaay. kaapo ñoo topp sama ginnaaw tey ku mel ne Tafa Mboup bu toppee sa ginnaaw taalibe Cheikh. Ah. Paul Douagne Claude Douagne est-ce que nga ah. Mor Diab kon mënoo nekk ragal. ak ñoom Cheikh yow sama entraîneur kon ñoom amul dara ñuy ragal. sa caat nga ne nga ne ñi nekk mag. waaw ah? waaw ñooñu ñu toll nii nañ la may nañ la may sa chance. d'accord boo xoolee mais nag ñoom boo xoolee tey ay andurofu ñu may chance. Hmm. booy pour ñu coow lamb te lamb coow la kon nañ ñëw ñu bëre barke sëñ Fallou na ñëw ñu bëri fii lu yomb amu fi lu lu yomb amu fi andu la fuul moom laay waxal na ñëw ñu bëri Alioune Seye junior bu yëmbal ñëw ñu bëri ak Tafa Gueye sinon bu sama màggee sinon sama màggee day gën a métti ci ñoom ba ci <laughs> doomu Rebeuss bi ngay waxal de le procureur déggoo le procureur procureur bi waaw procureur bi ngay waxal de même soo mënta am ñooñu soo mënta am ñooñu combat bi gaay soxla ndax maanaam dafa fay nekkal man làmb laa fi nekkal combat derbi combat nante yi nag gaa yi taxawal ñu xool waaw nag gaa yi taxawal ñu xool gis nga mama ñun bëri xamante ne suñu biir cooli mën naa bëri gars yi ne sa ginnaaw mais bisu arbitre ne pare nga ba ne diw pare nga bu ñu diree daal yi fa la mbëri mënantee lu garaaw fa la mbëri mënantee te moom gis naa ko la hmm. mi ngi daan ay bu feccee mu neex waaw te Thiatou Rebeuss bu feccee mu neex te Thiatou Rebeuss bu duggsee rek te Thiatou Rebeuss mooy bëri la beneen affaire la mais mais Thiatou tuus mi tuus mi waaw xam nga ñun ay xale lan ah. dëkk Rebeuss topp seen ginnaaw duwul hmm. ñun lu ñu def dafa war a mën a neex ñun buñ bëri dafa war a neex hmm. buñ xeex dafa war a a neex te man déggoo li ma ba tey comme man samay combat ma tudd deux minutes dama dama ñëw ne prip at bi tax ma dóor la jàpp la daal mais dama bëgg ko waxoon nañu bëri dix minutes combat xale dañu war a mën a bëri dix minutes xeex bëri barke Serigne Fallou déggoo li ma la amaana moom champion la man nag dafa guma dara ci làmb mais ñu ñaar ku ko tëgg doo perte te loo ci waay def doo perte lu ci waay def doo perte combat xale la combat der la moom der la man may der buñ ko taxawalee nag waaw yaa ma gën a xam lii euh, nu ñu koy waxee sax caat euh, moment bii ni ñu nekk. waaw ñaata séance ngay def par jour. bi deux séances laay def. deux séances laay def damay fajaru dem géej. Mhm. ngoon mi ñëw saal. ngoon mi ñëw saal waaw. Euh, fii bi. écrit bi waaw. écrit bi waaw fii di sant yàlla bu baax nag di sant bu baax a baax na xam nga tey daal man samay port ubbil naa ko promoteur yëpp. képp ku bëgg a bë tëg jaatu bës bi naa samay porte mais sa porte promoteur yi écrit bi gisuma fi mbër yu bëri bi moo tax. événement bi moo tax mais fi moom champion fi nekk bëri ndax ay mbay Balla Gaye suñu grand mi ngi fi ñoom Gambien ñoom Tigre bu ay ñoom fii sa Serigne ñoom ñëpp ñu fi mhm. seen comprendre mais bëri gestu ñoo tëgg booy fekkee public la ñu wër fii am na public am na lépp dafi gars ñoo jàppale booy ndax gars yi lamb ah. di liggéey pour lamb te pare nañ pour bëri ñëpp nag nag gars li may tàggoo di sant waa Rëbës ñëpp di sant damaa a nga génneel ma ko nag maman bu ci dagg dara di sant waa Rëbës billaahi wallaahi waaw nga génneel ma lépp di sant waa Cheikh Amad ma lépp di sant waa bu baax a baax mm. di sant sama waa dëkk waa Njaageen waa Njaageen amu seen fay damay sant waa Njaageen bu baax a baax di sant waa Guy Njaay xam nga sëñ Ablaye Diop Guy Njaay maa ngi ko sant bu baax a baax di sant sëñ Modou Bëti Jibi Joal di sant gaa yëpp Omar Ñing Marsi Mudaay grand Omar ci bu baax a baax di sant Paul Duwaañ kulub Duwaañ Paul Duwaañ bu baax a baax combat bi di sant sama kàppoo sama star ndaan kul ndaan di sant Tafa Mboup taalibe Seex aw ma fayam kooku nee naa la su ma amoon ñett mel ni moom du ma wax dara sa instant bi dama pare pour dem Paris c'est que li feebar nii rek mais waajoon naa pour dem Paris war na sëñ Fall à cause lépp moom la waruma ko na wax sax fii am na yoo xam ne da nga ko waroon bu baax a baax di sant ñëpp di sant sama grand Mor Diop Mor Diop da ciy jàpp bu baax di sant sama papa il faut ma dem yokku maas eh ah, maman barke Serigne Fallou Mba gars yi dañuy volume ak doole mais ñun kuñ jàppante man mosuma bëri si ma xam kii moo ëpp doole amul te tey bu demee ba ñëw dañoo xam ne kii maa gën a man dama waroon a voyage mais déggoo bi moo tax sama comme alliance bi moo tax lu garaaw wóor na waruma ko wax fenn sax mais xam rek ni mu demee waruma laa nëbb mais damay dem Paris bu bu affaire yi fa laa vacation di sant gars yëpp nag di sant international bi Ibou Boy Niang suñu international bi damaa bëgg nag Alioune Cissé Sénégal amul góol na convoqué booy bi booy bi seen talent bu nekk yoon na ci ñëw jàpp convoqué booy bi booy bi ndaanaan la waaw Alioune Cissé ñoo convoqué booy bi Ibou Ibou ko seen talent la Ibou Boy Niang ndaanaan la am dañoo manqué góol ñu ñëw jàpp di sant gars yëpp di sant Paul di sant sama waa dëkk waa Diourbel kër Cheikh Paris aw ma seen fa dañ jàpp di sant Baara borom Paris da ciy jàpp bu baax ak Binta Ndiaye Binta Séeri Mbiru moom it da ciy jàpp bu baax a baax di sant Dame Day daam day borom Italie sama grand combat bi passé wóor na Serigne Touba xaalis bëri la ma yónnee borom Italie te mi ngi may woo léegi nii di sant gars yëpp di sant sama mafia bi procureur bi mafia procureur moom seen fay dañ ku nekk Rebeuss waa wala bi ñu ngi leen sa kaay dañuy bégee kon bu baax a a di sant gars yëpp yow it di sama yaay xam nga amaana ba nga xamante yàggul a baax di na maa ngi moom ku ñu nar a tàqale na la fi yàlla jëlee barke ku ñu a tàqale yàlla na la fi yàlla jëlee maa ngi moom ba États-Unis daal ndax du ma a ko rek waa da ciy jàpp su ma matee combat du def dara billaay wala di wax promoteur ne ñëpp ñëw ñu bëre di Ndongo Njaay borom tëngee tarkindaa bi da ciy jàpp moom it bu baax a baax a baax di sant ku ma juum am moom matub di sant waa Rebeuss suñu entraîneur yi ak naa ngi sant gaa yëpp aw ma seen fay di sant sama mag abi moom it abi da ciy jàpp su ma amee combat 3 mois du fay ndekki du fay dara bari Serigne Touba lépp la di sant borom buur billaay wallaay waaw ah, ah, nee na gaañ nee na ay xar lañu bëgg waxal euh, waxal waxal ci xar yi non du ma la ay xar la jaay léegi mooy loolu noonu ay xar du wax tax coince na xaar lu métti xam ne waa Rebeuss coins du ci yées non loolu du ci yées na waaj rek <laughs> billaahi wallaahi taalaay eh, di sant nag waa jubel gépp ah. di sant waa sum mm. di sant waa sum waa bëti aw ma seen fay ndax ma man su ma amee combat gaa yëpp gaa yëpp ciy jàpp di sant sama grand Mor Diop am aw gay kooku dama du ma taal quoi Mor Diop da ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax billa kooku dere la sax kooku sama dere la mais da ciy jàpp di sant sama samay tante ñoom tànn ngoone sama mag Abigé ñoo bokk ndey ak baay mais mi ngi mel mooy sama yaay man sama yaay dafa teel a génn àdduna jooyu ma yaay da ciy jàpp bu baax di sant di ñaan sama papa mu yàgg fi lool ba fekk suñu njëriñ di wax nag Alioune Ndoye na ci ñëw jàpp Alioune ñun doomu rëbës lan doomu plateau lan fi lañ doo fi leen maagi suñu lépp rëbës la na ciy ñëw jàpp xam ne ñun jeunesse bi ñun sentir suñu bopp man loolu sax chaque jour dama koy wax suñ jeunesse bi sentir suñu bopp jeunesse bi sentir suñu bopp na ci ñëw jàpp bu baax a baax a baax di jaajëfal nag Balla Gaye 2 ci social bi muy def Balla Gaye 2 amaana déedéet mais damaa dajeeg moom bi mu wàcc sama combat ñu daje diin la première fois mu jox loxo Balla Gaye 2 mais borom baax di ko jaajëfal na xam nga social li mu mën ren yàlla ko yàlla déwén yàlla na raw moom it da ciy jàpp bu baax na mbëri def comme Balla Gaye di jàppale gars yi mbëri dañoo war def comme Balla Gaye di di xool ci moom di jàppale gars yi moom social la ci taxaw bu baax a baax baax billaay li ma sol ni nag sama grand sama xarit mbay guy gi moom ma ko jox waaw mbay guy gi di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam ci kaw maam Balla mbay guy gi gannaaw bu ñàkk ñaan la billaay wala maa bëgg nga xamante ak moom après gannaaw bu ñàkk ñaan la mbay guy gi di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam ci kaw maam Balla waaw euh, euh, euh, kon nag Cheikhou waaw kooku moo doon euh, caatu rëbës ñu fekk ko fii nga xam ne fi la ñuy entraîné muy seen écrit muy écrit rëbës euh, doon waxtaan ak moom dégg nga li mu wax bu baax a baax a baax a baax waaye ñoo ngi dellu rek di ziar ki nga xam ne ni moom mooy euh, Talibé Cheikh waaye ziar le promoteur muy président promoteur yi Pa Abdou Fall moom tamit ñoo ngi koy ziar moom njabootam gépp